toogal déglu kii laa wax de Samba Sall laa Samba Samba waaw seetaan ko waaw dinaa toogaat fii Cheikh Bara di nga ay révélation yu ah, dama lay wax rek dossier bi très mystique gars yi bàyyi wuñ ko noonu mais xabtal bi fan la jógee la sa ah de duma loolu moom toogal déglu kii laa wax de Samba Sall laa Samba Samba waaw seetaan ko waaw dinaa toogaat fii Cheikh Bara di nga def ay révélation yu. Ah, grave non dama lay wax rek dossier bi très mystique. gars yi bàyyi wuñ ko noonu. mais xabtal bi fan la jógee la la saa. ah loolu moom.